ñu ma doole dëgg la xam ma ñëw indi guerre bi nag bi man xam nga ne man kenn ñëwut a guerre ak man kenn musta guerre daa mos a gis ma wax dara kenn génn tontu moo tax saa dëkk waaw man kenn musuma tontu saa ñëwut man buñ may tontu sax léegi la nii bi ma feree xam nga xam ne léegi mais mais mais nag temps yi nag temps nag boo bëggee dégg nag bouché nag instant bi game bi moom xam naa ne dootul dox seen côté parce que yéen eh, yéen bu artistes yu juboo mooy seen ceeb lootul nii kan man yaa yéen. non man bokkuma non non non yow am nga sa business bopp. mais nag maanaam artiste lu ñaaw. non parce que non yéen du ngeen wax lu ñaaw mais maanaam da di yëngal yëngal boobu ngeen di yëngal yéen ci leen seen marché di dox. yéen bu jàmm amee rek fi toll nii jàmm ji am na ci diggante euh, Sidi ak Wally diggante ñëpp jàmmoo yéen arrangé wu leen. te man leer na ma ni yéen ñan la arrangé te yéen dama leen di leer ni. xoolal jàppal baax li ma la wax ni jàppal bu baax li ma la daan bëri yëpp mosoo dégg Pape Diouf Wally Seck ñoom ñoom kenn ku ne waxante lu ñaaw musul am même bu ñu bëggee bay jàmmoo sax ñii ñooy jóg ñoom boucher ketchup ñoom ñooy jóg yëngalaat te li ma naa wax nii déglu bi suy waaj jeex ñoom ñooy yëngalaat gem bi parce que ñoom jàmmi jàmmi artistes yi du seen arrangement duñ doxle non man am na ñu ma neexul sax fan yi naa ko wax. ah waaw. yow lan moo la neexul. non moo la neexul. non am na yu ma neexul. lan moo la neexul. jubóo bari na. jubóo gi non am na yu ma defaat. lan moo lan lan moo la neexul. non après naa ko wax. léegi lan moo la neexul man xam naa ne am na loolu neexul. jubóo neexul moom xam naa ne abaat na tukki du du sedd moom. ndax xam naa ne dañuy def def yi kii nii. mais am na yoo xam ne dañ la koy defaat quoi. mais Ketchup am na ñoo xam ne dañ naan am na ñoo xam ne dañ ne euh, Sidi Diop dafa songu Zénith dem ba gis na Zénith bi diis na ci kawam mu gis commentaire yi xaw a négatif truc machin mu xam ne fi mu toll nii Wally sekk bu ci yëkkatee kàddum rek comme làmmiñam am na barke am na yaakaar ne lii dana dox mu daal di bàyyi lépp wàccee lépp lépp luy gàdd wàcc ko ñëw jàkkaarloog Wally Seck. non demeewul noonu. Sidi punkal yi nekk ci ginnaawam ñoo gën a ñoo gën a diiswaale dañuy waxante dëgg Sidi Youssou Ndour seeti na ko nangul na ko jox na ko jox na ko accord am Pape jox na ko accord am ku Pape Diouf jox sa accord si Youssou Ndour jox la accord Sidiki Diabaté jox la accord Baaba Maal jox la accord Viviane jox la accord loolu desati Zénith. mais jeunesse bi waale lañ. waale lañ jox ma loo xaar rek Youssou Ndour buy dem Zénith du publicité. mosul publicité ci àddunaam danaan la Thérèse la jeunite kenn doo gis benn publicité da ngay jékki-jékki rek ñu ne bii jaana kon kooku du moroomu benn doomu aadama ci àdduna Pape juuf à part Youssou moom moo feesal Zénith Sénégal. Mhm. duy ko ba mu fees def ko tre 17000 13000 places xaw ma 17000 kooku waxi noppi. Mhm. kon waal day mottali rek xam nga. Mhm. te loolu mooy yoon nag quoi. Sidi dem yëgal ko ko loolu moo tax Sidi nag dafa xam ni bu demee ci Pape Diouf. dem ci Youssou Ndour dem ci ñëpp demul ci waal day ñaaw. mais ñu bëri dañ ne occasion yi yi occasion yi bëri woon na trop pour mu dem ci pour ci waal yi mais occasion yooyu yëpp da ko fenêtre. non dem du ci dem. nag yaay yaay waal dafa gaañu woon papaam gaañu xam nga mënul dem ci yooyu commencé talu ko woon léegi nag bi affaire yi seddee la dem nag ci ci ci ci waal yi yëgal ko ko te wax na ko ko foofu nee na ko bëggoon naa ñëw bu yàgg mais si li nga nekkoon taloo ko. moo tax mu dem nii te bi mu demee nag xam na ni waali yokku na ko parce que tamit waali bu dara am na benn mille personnes boo xam ne mën na leen indi sa nit xam nga ci ñoo xam ne ni Sidy demee ci waali nii rek la ñuy kontaan dem dagg bi mhm. ngir waali am na ñoo xam ne ni pa demee ci Pape Diouf la ñuy kontaan dagg bi ngir Pape Diouf am na ñoo xam ne ngir Youssou Ndour ku am nga say soppe yoo xam ne boo boo dumóoyoo seen mhm. ñu dumóoyu la mais en toute sincérité bi mu demee ci waali ni affaire yi déclenché woo déclenché wul ci ñi mu dem ñëpp en toute sincérité gu waxal yàlla rek. waaw loolu su xamul tax mooy surprise dafa am yoo xam ne surprise la am yoo xam du surprise Sidi dem na ci Youssou Ndour du surprise la far force la dañuy xam ni jàmm la sekk ak moom Sidi dem na ci Pape Diouf far force la dañuy xam ni jàmm la moom mais bu demee ci wàll bi nga xam ne ñëpp dañ naan ñoom ñaar jubóowuñu ay guerre kat lañ dañuy guerre bu fa demee day nekk surprise mi ngi mel ni wàll bu ñëwee sama sama sama immigration bi mhm. vidéo mi rek ngay gis parce que mooy surprise bi mhm. mais tey tey tey foogu ko woon foofu mais tey Boucher Ketchup mi nga xam ni euh, mën naa ne bu déggee turuwaal yi sax moom du jaar ci turuwaal yi du jaar ci tur wi bu dee wax sax day sànni ay track ba bañ dee wax ay disque d'or waal yi man ne mun a man yé man sama sama artiste laa yéene disque d'or keneen sama yoon nekku ci mais yooyu yëpp jaar fi wax yooyu yëpp jaar fi nga ñëw ba tey ji ak Wally ngeen dem ba toog ci même këram nga am événement mu ñëw euh, teewee ko beneen bi ci tege mooy sax am na ñoo xam ne nee nañ am na terang enveloppe bu mu la jox pour dooleel ko ci sa say projet yooyu yëpp nga dund ko ak li fi weesu tey yow boo toogee ak yow kese yow ni nga doone nit ak ni nga nekkee nit ku dëggu dëggu lan ngay resentir ci Wally Seck noonu nit ku baax la moom mais nag moom xam na game bi ni mu demee pourquoi mais nag waaw mooy xam na game bi mm-hmm. moom xam na ni Boucher li muy def du ko dépasser du ko wax lu ñaaw du ko wax loo xam ne tey bu subaa da koy ragal a xool mais xam na ni tey liggéey bi moo ko laaj moo tax tey ñu doon dóorante di def ay affaire mais bu ñu demee ba jàmm ñëw jàmm ñëw na moom xam na ni tey Boucher nitu dëgg la xam na ni Boucher gaynde la xam na ni Boucher champion la xam na ni Boucher du nit kuy jaay ngoram nit koo xam ne nag après dañuy xam ni rek suñ tubaa leen boole te lépp daa war a rafet mu rafet moom respect boobu jox na ma ko te man tam delloo naa ko. bi nga bi nga ñibbee sa kër loo yëg. kontaan. Mhm. xam naa ne nga kii du nit. ni mu ñëw. ma ne kat waali nag jam na ma te incha allahu rabbi dinaa ko fay te dinaa ko fay de. Mm. bu xam nga ni man ku ma jam bu may rocci paaka bi àdduna bépp yëg ko waaw waaw fi ne nii moom. Mm-hmm. bu xewlee te wala du ma wax sax lan laay def ci moom waaye dina xam ni moom jam na ndaanaan dëgg. Mm. te loolu nag moom. sama yëf la man du kenn ku ma ciy rendre compte nan ko lii laa war a def wala du may def lii waaye bor bi moom dinaa ko fay. Mhm. waaw kon kon tey jii euh, même bu fekkee ni si gars yi créwaat nañ beneen anomalie beneen coow diggante keneen ak keneen yow boucher yow dootoo ci kenn dootu la yóbbu. ci coow yow non la Pape Diouf moom nan nekk. non mais Waly musul tooñ Pape Diouf Pape Diouf musul tooñ. Waly Waly da doon def ay affaire ak gaay mi dañ doon def ay affaire mais gaay mi yee ko def mais du Waly ko def. benn la benn groupe la. man tamit man tamit man maa ko doon def. man noonu la gaay du benn groupe am na benn émission bu ma def ak ak ak euh, Sidi Diop nee naa ko Sidi yaa war a régler ñi ngay àndal Waly régler ñi muy àndal Pape Diouf régler ñi muy parce que yéen seen biir kenn du kenn kenn musu ci wax sa morom lu ñaaw Pape Diouf musul wax lu ñaaw Waly Waly musul wax lu ñaaw Pape Diouf Sidi Diop musul wax lu ñaaw Waly Waly musul wax lu ñaaw Pape Diouf donc yéen entourage bi ci nekk di teg ak non c'est que man xamuloo laa mënta comprendre euh, affaire bi du wax lu ñaaw Cheikh Sarr xam nga affaire bi lan la mais Kajob déglu ma boog maa ngi la xam lan la waaw da nga may déglu ma ay def ci suuf la mais lu tax ban def ci suuf def ci suuf ba ban def ci suuf moo am bari na mais def ci suuf amul imaginel Pape Diouf war a tëgg baaramundi mhm. Waly ñëw di ko xëccoog moom mais lu indi loolu est-ce que lijjanti ngeen lan moo indi loolu waa xam nga yooyu moom Waly dégg na ni Pape Diouf mi ngi baara mundi na ko bàyyi foofu grand frère am la mu dem tëngee tëgg fa. mais waali yaa ngi dégg moomu baara di ko diir mag di diir grand bi mag. Hmm. booy dañuy génn yëngal. mais waali Seck loolu rek la woon ah doom day. mais mais waali Seck mais waali Seck. wala Pape Diouf mi ngi jël ay date Gàmbi jël fa date yi. waaw mais loolu. mais mais tëggul boppam. non non non yenn yi moo koy tay. déedéet. tëggul boppam. yéen ñii moom mooy ñëw ne jël leen ma grand mi ngi def. non pour non non non déglu ma xoolal coowul Baara Mundi. <laughs> Waly Seck moomul Baara Mundi ba mën fa génnee Pape Diouf Pape Diouf moomul Baara Mundi ba génnee fa Waly Seck. waaw kon mais dégg na ko fa. waaw xaaral ma këcap dégg na ko fa rek na fa sori. waa léegi dëgg léegi dégg na fa grand mi ngi nii Pape Diouf war a jël Cissé le douze mu dem jël Cissé jël kii fi den ak Cissé. kañ xam nga waaye Pape Diouf day jël grand théâtre mu dem jël Cissesse jour même jour. mais liggéey la rek seen liggéey. mais yooyu yooyu ba dat yi mag bu Pape Diouf waree Zé Cissesse moom na xaar ba 24. lu tax muy xaar te mu yor njaboot. war a loolu nag moo dul yoon nag léegi nag yooyu. day mel ni ay affaire kii la quoi. affaire kan déedéet yàqalaat amu fi saa yi waxal ki dëgg yow yàqalaat amu fi ngay liggéey may liggéey indi problème bi. léegi day def ba pare booy bi day def ba pare gën taxaw ne non. Euh, affaire yi moom du paap sama gaal la ku doon sama mag la xam nga yooyu dafa yomb. waaw léegi nag benn buuse day génn non loolu du fi am xam nga coono na pour rek mais ñun ñëpp on est en famille. mais mais maa ngi koy gërëm bu baax nag. mais fan yi jàmm ji am nii yow ay yéen arrangé wu leen. non ban yan mooy arrangé man maa ngi si jàmm nga naan jàmm. ji am jàmm ji am nii am non mais yow dama ne la xoolal ma wax la benn affaire. waaw est ce que xam nga. non jàmm ji moom bénéfice la rek. bénéfice su kan. ñun ñëpp. <laughs> nu mu nekkee bénéfice ah, man naa ne. la non mais waxal. non bëggul lijjanti. nu mu nekkee bénéfice. non xam naa bénéfice bi. waali ba léegi demul dikkul yéen a dem yéen dikk. kan yéen ay wax yéen a dikkaat. déedéet fu mu dem. waali ñëw ci déedéet <laughs> non non mais defal ndànk sa ñëw moo tax waali def def déplacement. mais mais mais lenn man lenn lenn la lenn xam naa lenn xam naa ko <laughs> yéen lenn xam naa ko yéen ñëpp da war a yéemu ci waali ba pare waaru ci waaru ci moom parce que yéen ñëpp yéen wax yéen ay def mais yéen ay dem moom fi mu toog leen lay toog. fan lañ def fan dem. mais yéen a wax dem. roñ roñ dem. dañoo indi jàmm. kan yéen ay demati. waaw indiwaat problème yéen a ko fekkaat rek mu toog rek. non problème ñoom ñoo ñuy te li ci gën a garaaw moom moom day ñëw da lay jégal ba pare teral la. waaw waaw man mii di wax ak yow. waaw day rey nit de. wuy ma day rey gor. da koy wax lu ko da ngay wax lu la nga wax lu ne. yàq ko lu ne tuddal ko léppam. man doo ma boo ñëwee jéggal ko. mu jéggal la teral la jërëjëf man du ko yàlla la man doo man doo wax loo waale lu ñaaw <laughs> barki Serigne Bamba dama lay benn da ngeen war ci moom de gërëm bu baax di ko sant uh-huh. déplacement bi mu def <laughs> déplacé ko ñëw sama place bee uh-huh. doon na lu rëy ci man ndeysaan doon na lu ma neex doon na loo xam it du ma ko fàtte mukk ci àdduna doon na loo xam ni ba àdduna di tukki du ma ko bàyyi dama koy bàyyi xel ndax man gor laa ndeysaan man ku ma jàmm a ah, ku ma dóor almayat bi dëgg la te incha allahu rabbi loolu dinaa ko fay ba wis ko hmm. barki Serigne Touba ndax nit ku baax la taalibi Serigne Touba xaadimu rusul la mënul bon mënul soxor. Mhm. te mënul yéene nit lu ñaaw. fii nag la buujoo ñun suñu xol yi boo ko xaree xam ni yéene wuñu waa lu dara lu bon moom itam noonu soo gisee ñun ñaar bu ñu bi ñu gisantee. Mhm. ni demee rek nga xam ne ñaar ñi Serigne Touba leen boole.